maa ngi lay ñaan bu fekkee yaa ngi doog a seetaan vidéo yi ñuy def ci chaîne bii maa ngi lay ñaan nga abonné nga kolos bi te nga woo keneen mu abonné loolu moo ñu yokk doole moo tax yanquba mu ne yusufa sa gént gii bu ko wax say frère bu leen ko wax foofu nag jàngat gi daa bari lool jàngat gi mooy lu tax yonent yàlla yànqub mu ne yusufa bul nettali gént gi say frère boo leen ko waxee ñu fexeel la mooy boo leen ko waxee ñu iñaane la soxare la loolu day wane ne jafe-jafe yi am diggante doomu baay yi ci tegante bët yooyu yàgg na trop yooyu du léegi yàgg na lool waaye it nag Euh, doomu aadama da ngay moytu bët da moytu bët maanaam da ngay moytoo siiw ñun léegi léegi lañ bëgg siiw rek waaye siiw du jàmmi boroom loolu loolu wolof njaay moo ko wax dëgg la de waaw siiw jugul ñëpp am na ñoo xam ne luñ bëgg a def bu ko ñëpp xamee sax mu yàqu am na ñoo xam ne luñ bëgg a def bu ko ñëpp xamee mu yàqu waaw parce que am na ñoo xam ne seeni mbir nit ñi di ko xam aar jiguleen tayib soxor nag ci xol lay ne feebar buy nekk ci ci xol la day jàpp it nag maanaam mooy sabab cat mooy sabab mooy sabab cat cat ñetti mbir moo koy développé moo koy véhiculer ci nit ñetti mbir mooy véhiculer cat cat feebar bu garaw la moo gën a garaaw sax njabar cat moo gën a garaaw fop njabar man nga dem ci sëriñ nga njabar ma moo ma gënal nga catu ma ñun senegal cat lañ gën a ragal non njabar lañ gën a ragal waaw ah, ñun senegal njabar lañ gën a ragal waaye cat moo gën a yéeme fop njabar ñetti mbir yii ñetti mbir yii médecin mënu ci dara docteur mënu ci dara muy ay rab yu la jàpp di la daaneel ngay daanu mbaa jabar guñ la def mbaa cat laal la ñetti yi e, docteur mënu ci dara te ñett yi day def lu garaaw ci sa état de santé day def lu garaaw ci sa état de santé su la ay rab jàppee da ngay da ngay daanu ñu lay yëkkatee ko tëral ngay jàng yëkk di daanu école ñu naan jinne may mun a ngay ñëw ci kër gi bu la rab jàppee bopp buy metti dalay sono lool bopp buy metti buy tëë wér xanaa xamoon ne léegi léeg rab dinay jàpp ni daf ko am soj soj bu du wér mu naan daa sinusite fekk raba raba nekk ak moom ah sinusite waaw ah yee prononciation prononciation moom bàyyil noonu rek mu jàll <laughs> bàyyil bàyyi prononciation prononciation lañ koy wax xam ah waaye bi daal sinusite waaw mooy garab bii na ci bakkan soj bi moom laay wax lé dëgg la rab da koy def de waaw pour mu dëñ dinaa ñëw ci remède yi rab léeg-léeg dinay def asma euh, asma bu chronique rab da koy def léeg waaw di di sëqat rek ak ay ay pompe yi di pompe bopp buy metti rab da koy sabab ay dégg maladie chronique yëpp ngay dégg ay dégg souvent laa wax rab da ciy bokk léegi nag nan la ñu xame ne rab xarax na ci affaire yi nan lañ koy xame c'est très facile bi si jiitu mooy feebar bi nga xam ne da koo amee muy feebar chronique feebar bu chronique ci yow te médecin yi gis nañ ko nee na yow lii nga amee bu bindal la ko ci ay kayit da nga da suivre traitement médecine mais du avancé faire traitement bi la ci médecin yi di defal du avancé alors que da ngay gis même personne bu am même symptôme mi nga am kooku ay ay feebaram moom traitement mu ngi avancé avec les médecins mais yow sa traitement avancé avec les médecins et même médecin bi moo lay suivre di suivre kee mu ngi garab yaa ngi def ci moom effet directement baa ngi def ci moom effet mu ngi avance mais yow sa bos dafa taxaw au contraire yenn saa day dellu ginnaaw loolu symptôme bu dëgër la pour wax la ne effectivement tu es malade médecinement mais dafa amaale rab ci biir loolu bu bu la dalee loolu la ñuy wax loolu ñun loolu la ñuy tuddee koo xam ne feebaram seytaane moo ko moo ko couvrir moo nekk derrière ci ginnaaw mais maladie bi traitement médecine yi ngay jël du def effet léegi il faut ñu évacuer il faut ñu évacuer il faut ñu évacuer seytaane bi pour que mu mën a mu pour que traitement bi traitement médecine bi mu mën a def effet waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu sow sow waaw bismillah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu mu ngoog léegi nag bu fekkee ne yow da nga feebar moo xam bopp buy metti bu chronique moo xam saqat moo xam asma moo xam façon feebar bu mën a doon mais yaa ngi dem ci médecin yi di ko traité yaa ngi jël traitement yi ci war dem nga ba Europe mais du def effet dara dara prostate dégg nga nerf sciatique feebar nga xam dafa sonal nit ñi nga koy traité traitement bu ne nga ko ciy def amélioré bàyyil xel. que ne effectivement rab mën na làqatu ci traitement bu ci feebar boobu njabar aussi muy la sorcellerie mën na làqatu ci feebar boobu cat mën na làqatu ci feebar boobu maanaam yaramu doomu aadama bu fekkee dafa amaale yenn effet yii nga xam ne tudd naa ko te mu mënu ci dara science mënu ci dara bu ci feebaru médecine dollee ko traitement yi mun traitement médecine bi mënul def effet tant que évacué wuñ yooyu muy sa yaram bu dee dafa am cat même boo feebaree di faju doo wér même bu dee biir buy métti rek moo la dal garab boo naan du wér doo tane jamais da ngay faju di gën a feebar bu fekkee ne it nag dañ laa njabar yaa ngi dégg njabar gi fekk ci yow asma asma boobu noonu demal ba Europe di ko faj mais du wér parce que sa yaram dafa am njabar te njabar gi mu génn pour traitement bi wér parce que yooyu bu nekkee ci yow maanaam rab bu nekkee ci yow njabar nekk ci yow cat nekk ci yow yooyu il faut ñu am fu ñu làqatu il faut ñu am ay ay place si sa yaram fu ñu mën a làqatu di dund nag di màgg nag imma mu fekk ca bopp yu metti mu làqatu ci bopp buy metti ba imma mu fekk ca tànk yu metti mu làqatu ci tànk yu metti ba wala mu fekk ca benn maladie médecine mu làqatu ci maladie médecine boobu su ko defee médecins yi sax ñoom dañuy waaru dañ naan pourquoi traitement yi ñu la koy defal mënul wér bu dee lu ñuy opéré médecin dañ koy opéré dagg ko nettoyé ko teg ne quelques semaines mu ñëwaat bu ko defee ñoom dañuy waaru ñoom dañ naan mais lii opéré woon ko ko pourquoi mu dellu si parce que dafa am leneen lu ci rax te loolu science mu ko gis il ñu faj ko comprends nga léegi nag fagaru gi gën a efficace pour loolu dal la pour loolu dañ mooy képp kuy jullit képp kuy jullit feebar bu la mën a dal comprimer yi la médecin yi di jox dee ko naane ak eau coranisée del naane comprimé yi ak ndox ndoxu ruqya ndox boo xam dañ koo mocc masalan dangaa dem hôpital médecin yi jox la ne la da am bopp bi metti kuréel yi jox la ñu bindal la nga dem pharmacie jënd garab buy faj bopp buy metti ay comprimé la wala garab buy baax la nga koy def ci ndox muy fuur dégg nga jëlal butéelu Evian wala n'importe quel butéelu ndox pour bañ a def publicité n'importe quel butéelu ndox nga teg ko sa néeg jàng ci Fatiha jàng ci fatiha mooy bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din ba mu jeex jàng ko ci lu ëpp dix fois jàngal vingt fois vingt et un fois ëf ko ci jàngal xul wallaahu ahad lu ëpp dix fois jàngal xul rabbin naas lu ëpp dix fois xul rabbin falak lu ëpp dix fois lu ëf ko ci ay verset la yoo xam ne ñëpp mën nañ ko mën nañ ko jàng fatiha xul wallaahu ahad xul rabbin falak ak xul rabbin naas soo mënee ayatul kursi nga boole ko ci yow tu as déjà coranisé loo maanaam ndox moomu nekkatul ndoxu ordinaire ndox la bu ñu coraniser alors que day am barke day mën a def day azir ci sa yaram su fa fekkee njabar day azir ci sa yaram su fekkee euh, euh, cat day azir ci sa yaram su fa fekkee li nga xam ne mooy seetaane léegi nag boole ko ak médicament yi nga jël ci médecin yi donc yaa ngi suivre deux traitements à la fois yaa ngi suivre deux traitement à la fois te wallaahi loolu boo ko testewee da ngay gis sa état de santé maanaam yow li nit ñi di faju ci un mois yow da nga koy faju ci quinze jours lu nit ñi di faju ci un mois da koy faju ci quinze jours surtout nag boo ci boolee di sangoo ndox moomu léeg-léeg léeg nga tàng ci pot wut soo taxaw sottee ko sa yaram donc man damay faral di wax ne moment yi ñuy dund danger gënula nekk danger laa wax gënu la nekk maanaam di ñàkk di sangoo eau coranisée man damaa gëm ne jamono jii laa wax de waxuma bu njëkk bu njëkk xëy na njëkk jaru ko woon mais léegi laa wax léegi jamono jii ñu nekk nii képp kuy jullit laa wax de da nga war di coraniser ndox di ko sangoo mooy léeg-léeg nga root am ndox tiim ko jàng ci faatiya lu bari yoon vingt fois vingt fois onze fois lu bari yoon nga jàng ko ci faatiya mais nag na tóol na faatiya ji tóol ëf ko ci biir ndox mi jàng falaqi jàngi naas ëf ko ci ndox mi wut foo taxaw sottee ko loolu jullit bu nekk jamono yii da ngaa war di ko def benn yoon ci weer wi wala benn yoon par trois mois minimum léegi lu tax loolu lu tax sama expérience mooy damaa gis ne léegi pour nit ñi catu la c'est comme salaamaaleykum maaleykum salaam léegi pour ñu catu la maanaam pour cat jàpp la dafa gaaw li ko waral mooy soxor daa bari léegi ci nit ñi tegante bët gi dafa bari bàyyante xel gi daa bari te doomu aadama yi léegi dañoo matérialiste téléphone bu cher rek boo ko waxee nit ñi ko boo ko yoree nit ñi commenté ko téléphone bu cher rek téléphone bu cher kese téléphone buy jar sept cent mille kese boo ko yoree nit ñi nit ñi ko yére am na may solo yére sax nit ñi commenté ko maanaam nit ñi dañoo am jot pour commenter ci li nit ñi di def nit ñi léegi dañoo am jot di wax ci li nit ñi di def dégg nga loolu ba pare dëkk bi metti boo nekkee ci réew bu metti boo solee lu rafet day feeñ boo amee xaalis day feeñ maanaam boo wax ma nga am lu bari rek maanaam tuuti rek boo tàmbalee yor tuuti rek day feeñ lekk bu neex sa boo ko lekkee boo sa soxna sax bu demee marché am na lu muy ndugg rek ñu xam ne li lim duggal lan la parce que dëkk bi dafa dafa ñàkk dëkk bi daa ñàkk mu ngi mel ni nit ku ñuul ku nekk ci biir tubaab day fës day yooyu nag da indi jalousie doomi aadama yi léegi dañoo jaloux jaloux dafa gaaw te yooyu dafay jeexintal ci sa état de santé yooyu daf lay indil problème loolu moo tax euh, ba day baax léeg-léeg. bul xaar ba daanu rek wala nga xaar ba tëdd mais da ngay fagaru balaa muy alay attaqué te yi ma wax nii yëpp ay fagaru la sa très facile nekk lu jafe alors cat kon noonu la sànq nee naa leen moo gën a garaaw moo gën a garaaw njabar parce que yonent bi alayhi salaatu salaam nee na tet day rey tet day rey parce que day lekk intérieur nit ki lay lekk moom sidit yi lay attaqué set say sidit say sidit lay attaqué téye ko doo fonctionner normal dafay wàññi dafay réduire say capacité léegi-léeg nga gis nit ku mën a jàng élève bu mën a jàng aay ci njàng lool jour bi ñu koy publier moom élève boobee ndax mën a jàngam fa lay jaare di ressentir di commencer di sentir faiblesse ci wàllum mémorisation léegi-léeg même ñi jang alcorane di mokal ni leen la gis ben élève bu mokal alcorane ñu yobbu ko ci biti defal ko conférence mu ñëw tariru neex ni ma sha allah ñepp ni waaw xale bi nangam nangam bu delo dara ja da ngay gis mokal bi commencé di faible muy mokal muy feut lam mokal di faté baat bi commencé di xuur di commencé di yaq bu ko defé serigne dara bi yaakaar ne leen liñ ko defal liñ ko defal conférence motax muy muy ko fekk na conférence bo lako bu yag yag sax léegi nag li ma leen wax nii ay muslaay la ci ay mucc la ci yonent yàlla Yankoob nag dafa joxe benn méthode ci méthode ku bëgg a mucc ci jalousie mooy lan mooy laa tax ruyaaka ala ixwatika maanaam del nëbbu say affaire del nëbbu del nëbbu say mbir bul wax lépp li nga war a def donte ki la gën a jege ci nit ñi la donte ki la gën a jege ci nit ñi la doomu aadama ñett ñii ñoo ko dul soxore lu dul ci exception ñetti nit ñoo la dul soxore lu dul ci exception sa baay sa yaay sa soxna par exception donte am na ñoo xam ne seen yaay da leen di soxore mais loolu bariwul sa yaay soxore la nga am dara sa yaay sentir jalousie pour yow loolu bariwul de day am nag mais bariwul sa baay di la iñaane loolu day am mais bariwul sa soxna it nag bu sañoon yaay fii gën léegi-léegi nga am jabar ju la soxore mais loolu bariwul tamit nag bariwul kon ñett ñoo la dul iñaane ñett ñoo la dul iñaane muy sa papa sa yaay ak sa soxna ku dul ñii ku dul man nga leen a nëbb say mbir ba mu sotti nga doog ko wax te ku dul ñii moom c'est pas nécessaire moom mu xam li nga war a def quand même wax dëgg ak yàlla <laughs> ku dul ñii kudul pa bi mer bi ak soxna si vraiment ñi dess ne man nañoo xara ah, pour l'information man mën xar ba affaire soti ah oui ah, ay xaritu ben bakkan ak sama doomu nday ak sama doomu baay ak ñi ñep man nañoo xar ba affaire gëna gën leer bu dé voyage la ba voyage bi gëna a leer bu dé leneen la ba mu gëna leer lu dul nag loo tu as envie de partager avec ak sa xarit pour mu dolli la ci xalaat wala pour mu jàppale la ci lolou boba grawul mais wax ni rek pour wax. juste pour joxe information non dafal ndànk dafal ndànk moo tax ay Ayub Yanqub mu ne doom ji sa gént gi bu ko nettali bu ko nettali say bu ko nettali say frère boo ko leen ko nettalee mën na am ñu iñaane la bu ko defee ñu tegal la ay fexe fexeel la ndax seytaane day jaxase ba jaxase diggante ay mbokk feebaru iñaan nag léeg-léeg nit ki di ko tay bu lay dal doo ko tay feebar la buy dal nit léeg-léeg doo ko tay léeg-léeg nga xool nit rek am salu ci moom maanaam ñàkk koo yéene daal avancement yi muy réaliser ci dundam daal di metti sa xol yooyu nag bu la dalee mën nañ koo faj faj gi mooy lan mooy del wéet di ñaanal kooku del wéet di ko di ko ñaanal maanaam di wéet di tudd turam di ko ñaanal naan diw yàlla na ko yàlla defal jàmm parce tudd bi nga tudd turam làmmiñ bi di jàmm xol bi day répondre ci loolu donte dana commencement bi xol bi mën na bañ mais forcer xol bi neel diw na ko yàlla defal jàmm diw yal na ko yàlla defal jàmm di ko ñaanal ay tawféex ñaareel ba mooy del def lu baax di jëme ci moom dégg nga del léeg-léeg del jël ci li nga moom di ko may ñetteel ba mooy dee ko akolaat del taf sa dënn ci dënn dënnam del taf sa dënn ci dënnam loolu day indi indi jalousie bu dee sa fereer la bu dee sa euh, sa sœur la bu dee sa xarit bu dee sa dëkkandoo sa connaissance sa ami d'enfance lu man a doon donc yii ma la wax bu la dalee ci moom yii ma la tuddal mën na koo faj donte am na ñoo xam ne nag soxor ci seen deret la ne naturellement ils sont méchants naturellement dañoo zalu am na ñu mel noonu am na ñoo xam ne moom du feebar ci ñoom waaye ndono la ci seen deret la nekk mooy bugguñu kenn raw leen bugguñu kenn féete leen kanam bugguñu kenn jiitu leen ci dara waaw lépp ñoom ñoo buñ sañoon yow doo leen raw te yàlla nag mooy maye yàlla mooy séddale waa kañ